lii nga xamante ni moom moo xew tey ñëpp di ko jooytu muy yokk gi nga xam dañ koy yokk njëgu mbëj gi euh, maanaam électricité bi yokk googu noonu du am loolu moom moo tax ñun ñii di aar nu bokk gannaaw ba ñu gëmee ne kii di caytu gi maanaam gouvernement Sénégal ni nga xamante ni moom la yokkee njëgu mbëj gi mënoon naa ñàkk bu fekkonte ni li jëm ci pass yi maanaam contrat yi nga xamante daf ko xaatim jëm ci pétrole bi ak ak yeneen xeetu ballu yu mbindaare yi daf ko defoon lépp rek di ci sàmm rek euh, njëriñu askan wi amaana kon mbëj gi tey njëg du yokk maanaam électricité bi euh, prix bi du yokk loolu noonu moom moo tax ñun aadunu bokk ñuy woo saa Sénégal yëpp ma réew yëpp maanaam citoyen yëpp ñu lànk ba wut ku leen di lànkale lu jëm ci li nga xamante ni mooy yokk gi ñu yokk njëgu mbëj gi maanaam électricité bi ñu lànk ko te wane ko ci anam bu nekk wax ne kat euh, yokk gi ñu yokk xanaa njëgu mbëj gi duñ ci ànd te duñu ko nangu loolu moom moo tax euh, plateforme Aar Li Nu Bokk maanaam kuréel gi ne kat moom euh, dina ma fësal sañ-sañam jëm ci lan mooy lootaabe maanaam organiser lii nga xamante ni moom mooy xeex bi nga xamante ni waa Séné askanu Sénégal dañ koy xeex jëm ci bañ li nga xamante ni moom mooy làmbatu gi nga xamante ni moom la càmm gi nekkee maanaam état bi ak caytu gi ak gouvernement bi ak ñàkk ak tële gi nga xamante ni moom la caytu gi wane ba mu indi jafe yi askan wi di ko dund loolu noonu dinañ jóg taxaw ni ñun kat duñ ko nangoo fay fay gi kat ñoom ñu ngi ko bëgg a jaarale ci euh, njëg euh, mbëj gi nga xamante ni dañoo yokk euh, njëg gi. ginnaaw ba loolu weesoo itam suñu ndaje mi ñu amaloon ci ay bés bi di ba ñu wéeroo ci li xamante ni ci la ñu déggoo woon ne kat li nga xamante ni moom mooy kuréel gi di aarunu bokk lii koy jiitee ñaari doom ñaari nit lay nekk te ginnaaw loolu itam dafay nekk mbir moo xamante ni dañ koy ay ayloo ngir bañ rek aarunu bokk am kanam wala boog ñu naan kii mooy aarunu bokk wala kaa mooy aarunu bokk loolu moom moo tax kat ci biir loolu kii di Cheikh Tidiane Dieye ak euh, Aliou Sané mi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ci bopp aarunu bokk euh, euh, jox nañu bopp bi léegi kii di Guy Marius Sagna ak Ndeye Fatou Diop Blondin ñoom kat fekk diiru juróom benn weer ñoom ñooy doxal ñu ànd ceeg ñoom di doxal ànd ak askanu Sénégal di doxal ba nga xamante ni li nga xamante ni moom mooy suñu njëw maanaam suñu objectif muy yorin bi nga xam moom la càmm gi état bi yoree suñu ballo mbindaare yi maanaam ressources naturelles yi dana nekk yorin bu mucc ayib lii nag ñi ko amalee fii ci Ndakaaru tey ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru novembre atum 2019 di leen gërëm di leen sant wax nañ ci audition yi li ñu ci wax moom mooy ne ñun ñu ngi xëpp suñu ay gët di xool ndaxte yaakaar naa nañ ko dooree woon indiwoon na teyam xel maanaam ñu ngi doo a gis si àdduna ah mbir am ñiy woo naan ñëw leen ku am seere a wala loo ci xam nga ñëw wax ko waaye ba loolu weesoo ginnaaw mbir mi ñun wéyal nañ suñu xeex ba tax mbir mi léegi tàbbi na ci loxo yi ki nga xamante ni mooy magu àttekat yi maanaam euh, doyen des juges ah ñun ñoo ngi xaar ba pare nag moom di ko ñaax di ko ñaax ngir mu baral mbir mi baral lu ñu tuggee maanaam enquête bi ba nga xamante ni li ci tukkee dina ci tukkee te diñ ciy xaar moom mooy lu ci tukkee wane ne kat tëddee na njaaxaanaay ba nga xam képp koo xam ne loo xam dafa dugg ci mbirum ger wala ay mbuxum wala euh, wuruj jëm ci li nga xam ne alal askan wi la ba tax alal jooju noonu ci pas yu bon yi nga xamante ni moom la càmmug Sénégal xaatim mu wommi askan wi loo xam ne alalam la woon loolu noonu kat wax dëgg yàlla ñu jàpp ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko def ba pare daani war a tege seen kaw tege seen kaw ñi xamal tamit euh, kii nga xamante ni moom mooy ah magu àttekat yi ak euh, yoonu Sénégal yëpp ak càmmu Sénégal ne kat aaruna bokk ak saa Sénégal yi maanaam doomu Sénégal yi duñu mës a nangu lu tukkee ci enquête bi loo xamante ni dafay wane ne kat lii tëddeewul njaaxaanaay